chers internautes yu enquête 221 dal leen jàmm dalati leen jàmm ci li gën fës ci ëtt yëglekaay ñu commencé kook réew mi ko tujjee mi soit ci nguurug Sénégal gi nga xamante di fi mu nii mu ci calcul politique yu metti dèjà ñu bëri jàpp nañu ne haut conseil des collectivités territoriales poste bi Aminata Mbengue yoroon dañ koy changé jox ko keneen waaye yéen mu ngi xamal sax ne Sénat ci boppam laa la wax boobu moytuwul Macky mii indiwaat ko lépp dem ba ci biir Yewwi Askan bi candidature kenn mënu laa moo ci candidat officiel bi bu dee Barthélémy Diaz moom fi mu nii bépp décision bu ñu nar a jël ci kawam faaw mu rax ay calcul politique kenn ci ñi gën jege Barthélémy Diaz di xam ne ci biir yéenekaay bi ni fi mu nii moom dañoo trahir Barthélémy Diaz maanaam jël nañ candidature bii écarté ko te ñi ko def nag na leen wóor ne defuñu leen lu dul trahison source aané candidature bu kenn xaalatoon kay te mu ñëw dernière minute mooy candidature Birame Souleye Diop bu Pastef yéenekaay bi def taxaw seetlu ci conférence de presse bu mujj bi nga xamante ni président Ousmane Sonko def na ko ne et pourtant moom président Ousmane Sonko moo sàkk woon ci patriote yii na leen nag def leen focus ci présidentielle consensus am na ci biir Pastef ndax candidature Birame Souleye Diop bi ñu bëri jàpp nañ ne nekkul lu ñu waxtaanee ci biir Pastef Les Échos yéene kay ne beneen candidature bi jur coow kay ci bureau assemblée nationale bii rawatina ci intercoalition Yewwi Askan Wi Wallu Sénégal moo di candidature Lamine moom mi nga xamante ni ñu bëri dañ doon wax ne Ousmane Sonko moom lay soutenir moom jiitu Pastef Ousmane Sonko nag mujjee naa génn daal leeral coow li tey xam le nag ne muy neex muy naqari gis nga président assemblée nationale ñun waa Yewwi Askan bi sunu candidature mooy candidat bi gën a wóor ci opposition bi de Ousmane wedd na ba mu set wecc na ñi nga xam ne dañ doon wax ni dafay soutenir candidature wàllu Sénégal bii di Lamine Thiam moom Ousmane Sonko di xam ne ci biir yéenekaay bi ne gis nga intercoalition Yewwi bi wàllu su mënta jógee ci biir Yewwi bi ñu daggal ca na mu gën a gaawee collaboration bii teewul tam yéenekaay bi mu ngi xamal ne Ahmed Aidara moom ba léegi mu ngi maintenir candidature am yéenekaay bi deesaat ci arrestation yu taqarnaase yi nga xamante

Ndour jëlekaay bi deesuwaat ci jàkkaarloo gi mu jàkkaarloo woon ak bi ñeel coow viol bi nga xamante ni dar na ko jamono ji moom ex directeur kudd bii di xam ci biir yéenekaay bi ne sama a gëstu ndax nga xamante ni wax na ko day xam moom mbindaan bi ci biir yéenekaay bi ne gis nga Sitor Ndour mii yéeg ci sama kaw laa la wax la def jël loxoom yi di ko dugal fu ko neex ci sama biir yaram bi yéenekaay bi dem ba ji nettali sax na règlement de compte dëgg nag moo amoon ca biir tribunal ba lépp ngir mën a lëjmat fond dossier bii ñeel accusation yi ñuy teg ci responsable benn bokk yaakaar bii di Sitor Ndour la tribune bi ni moom la sénégalais yi nekkee yéenekaay bi dañu xamante ne gis nga réew mi booy xool ñi ci añ di reer di ndékki sax léegi bëreetul sénégalais yi sonn nañu dee nañu tàyyi nañu xiif di leen di bëgg rey prix denrées alimentaires yi yokku pauvreté gi moom foo ko nattu rek weesu na ko teg ci dul état bu Sénégal bi nga xamante ni Macky Sall moo ne ca bopp ba léegi fa yéenekaay moom dalal Bougane Gueye mu yëkkati ay kàddu di ko jagleel député Benno Bokk Yaakaar yi nga xamante ne di xam ne ci biir yéenekaay bi ne il faut que député yi jël seen responsabilité bañ nangul Macky loo xamante ni dañ koo bañaloon maître Abdoulaye Wade te li gën a yées nag te gën a bon moo di ànd ak koo xamante ni dafay daanu te président Macky bu xoolaatee boppam kandidaawu benn bokk yaakaar votel opposition bi ngir changement mën a am ci réew mi président Bougane Gueye Dany yemul ci loolu ndaxte mu ngi xamal waa Yewwi bi ne il faut que opposition bi yëpp nekk benn say amandoor benn candidat daat koy soutenir mu mën a gagné élection yi surtout nag poste président su assemblée nationale moom président Bougane Gueye Dany yekk lu mel ni xamee président Macky te koy xamal ni réew mi nag boo ko yëgul ma yëgal la ko kumba yi nga xam ne moom la àndal yéenekaay bi dañu xamal ne ci ñetti fan ak juróomi doomi aadama ñàkk nañ seen bakkan ndax ndox mi ñu ci seen kër maanaam di génne ndox mi fees seen biir kër yi far courant rax ci biir ndox mi daal jël seen bakkan yéenekaay bi deesal ci juróomi décès yi nga xamante ni Sénégal gi am na ko ci ñetti fan yi ne bokk na ci nag Sadia Diatta Noa Diatta Doudou Ndoye Pape Gueye ba ci Fallou Gueye mi nga xamante ni amul rek bàyyi xel seen seen YouTube bi d'enquête 221 li gën yaatu ci actualité ak information dañ ci dellusiwaat ci ne mu gën a yaatoo